bëgg a làkk taxul ñuy làkk jamono jot dafa amatul te ci sama bopp laa ko xame jamono ba sa yit cheikh di dajeek yéen mag ñi bu ma leen xaaroon la mu daan wax duma ci jot ah. waaye yàlla ak mañatu fon muy lak bàyyi fi ndax xamna ni amna ñuy ñëw soxla ji ko ñu enregistrer ko denc ko motax ñun bi ñu ñewé muy sunu chance waaw lolu rek ka tax de waye bëgg lak ndax ñu ma raw rek ka fi ne waaw waaw tabaarakallahu ndax ndar laa ñëw fii la Maodo defee lépp fii la Serigne Babacar Sy defee lépp mel na ni maître boo jéggi gis jàkk gis daara kon nag ku ñëw dëkk bu mel noonu doon yi danga leen di jàngal waaye sañ nga leen wax nag na nga déggi waaw waaye bala ñuy jëm ci loolu xam naa ngeen baal ma gis ñàkk min grand boobu moo tax yëpp di wadd <laughs> waaye comme tey bàyyi ak yaay yi ñoo moome ma sol sol lu rek grand boobu ndax nuroo mag ñi tuuti waaw bi ci des it dellu fuuta sama mbokk yaa ngi may ree waaw di sànn mel ni nag sunu mbokk Abdallah Njaay wax na ci turu ñépp xëy na bu ñu demee ca jeexal ba ñu dellusi ci nuyoo yi ak sant yi kenn ku ne góor ak jigéen rawatina way jur yu tedd yi ak itam tabaarakallahu yaay yu tedd yi ak it sëriñu daara yu baax yi ak it ñi yore association diine yu am solo yi ak it association yi yore wàllu jamono ñoo leen tuddee ay navétane ni ñu ko waxee tabaarakallahu nuyoo itam ak it bàyyu diine yi ak yaayu diine yi ak bàyyu daayira yi ak yaayu daayira yi nuyoo tabaarakallahu ak it administration bi ñi leen fi toogal tudd nañu leen la ko commencé ci gouverneur ba ba ci meeru dëkk bi tabaarakallahu sunu mbokk waa police sunu mbokk sapeur pompier yi tabaarakallahu ku nekk ak sa taxawaay ku ci ne dinañ ci dellu si nuyu la sant la sargal la ci turu ñi moom yëf yi ne ñi ko moom mooy ñi toog fa tabarakallahu sëriñ Habib mu ngi toog ànd ak mbokk mbokkam Cheikh El Hadj Malick Sy bu Seyid Cheikh Ahmed Tijani sunu sëriñ waaw raw ma dong ëpp ma leer moo tax ma def ko sama sëriñ du caagee nag deret wala leneen bu ma rawul woon ëpp ma leer du nekk sama sëriñ billaahi kon nag moom mooy bàyyu bàyyi waaw nag ci turam la ñu ñëwee tey moo ma yóbbante ni ma boo demee nuyul ma waa ndar ni ma xam naa ni sax dinañ ma mere ndax gëju fa mu ne ma ki démb dem naa ba ca dex ga mu ne ma sangu بالله fa sax waaw waaw billaahi waaw ma tax na kon nag tabaarakallahu nuyoo baa ngi noonu nag sëriñ Habib Cheikh El Hadj Malick ak seeni nijaay ak seeni magi daara Mansour Saara ngi nii ak yi ci biir ak ci biti ak seen rakk yi topp ci ñoom wa tabaarakallahu soxna sata taal sama soxna bopp mu nga ne le toog ànd ak mbokkam soxna lalla ak soxna ji jigéen yaa ànd ñoom yaay yi boot leen fa tabaarakallahu ah euh, ku ràcc taf ci sa kanam nag mu dell nuyu naa parti yi ay ñu may ma ma nuyu sama parti bopp muy waa PUR waaw sama secrétaire général Khalifa Babacar Diouf mu ngi nii toog ànd ak ñi mu ko bokkal waaw eh, mu mel ni nag dañu jëm ci liggéey foog naa ni liggéey sax ku ci jëm doo bare wax li ñu leen di wax it sawar taxul waaye ku nekk ci daara jaamur bëgg ko liggéeyal war ngay xaw di fortu tuuti ca na mu waxe looloo taxoon ma ñaan ñu def lu ñoo tuddee colonie colonie bu nga xam ni nag presque séminaire rekk lay doon waaye ni ko Abdoulaye waxe ci ni am na sax ñu jaaxle ndax li ñu miinoon ci colonie mooy ay xaleel kon bu ñu jëlee ay mag yóbbu leen ci koloni mës ñu ko xam waaye dafa toll ni dalika mablaguhum min al ilm waaye man mi ko tëral dama gëm ni fa ala al an yataallama kayfa yuallim waaw léeg-léeg jamono laaj ki daan jàngale ci daara ji dem wuti ku ko raw mu jàngalaat ko tuuti ndax ku am ay at di jàngale rekk la nga xamoon war nga seet ku la ëpp dara mu yokk tuuti ndax ña nga amee yokk lii rekk la bi ci des itam mooy xorom xorom buy dugg ci cin di seeyal boppam yal na fekk ni defar ñam a tax li ma wax dëgg la wala du dëgg ku ne xam na ni xorom buy dugg ci ndox di seey kon nag bu demee bay bàyyi mbuus ba mu ne sàkku ba fekk ji cin seey ca ndox yàlla na fekk ni defar ñam moo tax parce que bu yàqee ñam lu koy defar dootul yomb looloo tax colonie bi nag bala ñuy dem ci fenn ñu commencé ci bàyyi ak yaay yi ndax ñooy xorom ñoo mën a defar ñam bi waaye ñoo ko mën yàq waaw bu ko defee nag maanaam ci waxtaan bi dafay laaj ñu déglu ko tuuti ak xel sama bàyyi yu baax yi sëriñ Ahmed si saara ngi nii toog sëriñ Ablaye Joom a ngi nii toog fa tabaarakallahu sëriñ Lamine Mbaye a ngi nii topp ak bay yu baax yi topp ci seen gannaaw te góor gi Momar Thiaw nekkal leen ci ñoom di leen jàppale ci liggéey bi noonu ñu ci jàppe noon la ci yaay yu baax yi jàppe toog nii féetewoo ci njaboot ci mu mel ni nag bu ñu seetloo alquran aaya yi bare na ñaare baat bare na lu ko sunu boroom tudd ci alquran yéen ñi jàng alquran xam ngeen ni baatu abaahum ñëw na ba tey ci alquran waaye baatu ummahaatihim it ñëw na ba tàyyee ca alquran mais lu tax yàlla sawar ci di leen tudd dafay laaj ngeen déglu ko lu tax yàlla sawar ci tudd baay sawar ci tudd yaay te moom moo bind aadama te am aadama amul baay amul ndey lu tax mënul woon continuer bind nit te du am baay du am ndey lu tax mënul continuer waaye aadama ñàkk baay ñàkk ndey te teewul mu nekk lañ ko bindee ca kaw a tax parce que ca kaw programme ba fay dox ka yàlla séqal foofa mën na bañ a soxla baay ak ndey ci wetam waaye bi aadama wàcc si ci kaw suuf nag suuf programme am bokkul ak bu asamaan moo tax bu yàlla bëggee yar nit foog mu am ay collaborateur li muy bind bind kon nag ndey ak baay li ñu war a jëkk a jàpp mooy ñoom ñooy collaborateur u yàlla pour yar nit mais yàlla def di mag mu muus xam na ni bu xëyee ni ndey ak baay kaay leen jàppale ma ci nit ñu ne yee eh, lu jeex sunu yoon di moo leen bind na leen yar mu tax mu def yëfu muus fexe ba jaarale leen ci ndey ak baay bala moo tudd nit tudd doom kiñ leen ni sa doom la nag ku la ca ñaanul ndimbalit nga taxaw ca dégg ngeen ko wala déet ah? bu ni woon kaay leen dimbale ma ci yar nit rek ñu ni ko yaa ko bind mais yar ko waaye xam na ni suuf la suuf dafa am lu mu laaj foog mu am ci ay collaborateur moo tax nag mu bañ ñu ñu ñu delloo teraanga bi mu génnee leen ci ndey ak baay bala muy nangu ñu tudde leen nit ñu tudde leen doom ndax xam ne ku ñu la ni kii sa doom la ku la ca ñaanul ndimbalit nga xaw ca waaye it nga bàyyi xel ni bis bu màggee di nit yow ndey ak baay jàppal ni ki ñu la ni sa doom la bis bu màggee di nit te bis bu nekkee ni dellu ca boroomam nga bàyyi ci xel nono آية بي الله هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا إله إلا الله نحن نتيترو لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون لا اله الا الله يلا نانا إيني صلو دي تيترو تي ما خرن ما خرن ba ngeen ëmb ci biiru ndey imbiku te dara xewul xam nga boobu di benn mu ne wa ko lakumu sama ndax àdduna bi ngeen jëm si ku loo dégloo am yu la raw moo tax def naa déggukaay ci yéen wal absaara àdduna boo xam ni ku xamul fi ngay jaar ñu dem bàyyi la kon def naa ci yéen lu ngeen di xoole wal af idata si nga yàlla yéeme wal af idata bu ko tuddee rek mooy yi kenn dul gis ma bind xol bu yëkk ak xel muy xalaat ak ruux buy sellal bind naa sama ngeen war a dégg ma bind basar ngeen war a gis ak yi ngeen dul gis te bu ñëwul du ngeen dem ma bind xol muy yëg بند خل موي خلات بند روح موي سلال ين جدس لعلكم تشكرون بمجو بابرك لنان دايك باي لعلكم تشكرون يجن متي يب دفنكو من ندايك باي كم دفنا يويو بنبي نغلا نغلا سرحما نتكي دولنين

ku tekki mooy kan mu ni koo xam ni leer gaa nga fa ndax wéetal na koo xam ni barke baa nga fa ndax la mu war a def la def waaw ah, koo xam ni xel maa nga fa ndax xelam masul dañ di tàggat xaqaayiq yi ci xalaat doy na nit bu fa leer nekkee ndax wéetal boromam barke nekk fa ndax la mu war a def rek la def ah xel mu rafet nekk fa parce que fexe na ba xelam tàggat xaqaa'iq yi ci xalaat boy wut ànd bu mu la raw ña cay ilimaani ñépp nag ñoom la tudd soogi ñëw foofu booy wut ko am leer am barke am xel mu rafet nga war a ànd bu la wa tiini raw wa zaytun bu la wa tuuri siniina raw bu mu la raw bu la wa haadal baladil amin raw waaw ku ak ñett ñi tekki yomb la wa tiini wa zaytuni isa bnu mariam la وطور سينين موسى بن عمران وهذا البلد الأمين محمد رسول الله له يحن يحن yàlla nag nee na ku tekkeewul ci boobu tekkee dee fi ne booboy asfalu safilin mooy mooy unwaan bi te mooy safaanu yooyu amuloo leer amoo barke amoo xel mu rafet lenn fi des ñu taaj la ñoom ñam comme xar yi taaj la ndox comme xar yi fàkkal la nga tëdd comme xar yi wutal la fooy deme joor comme xar yi yaay seet nag ndax bii ngay tànn wala bële kooku nag yaay seet looloo tax collaboration boobu yàllay wut ci ndey ak baay te mu bëgg ñu def ci jom mu di leen ko jox ci façon bu doy waar bu mat xalaat ndey bi jóg gaawantu doom yi gaaw leen gaaw heure école bi jot na daw leen gaaw ci douche bi dem leen def seen pat ñu daw jël seen brosse brosse fu ne waaw lu ne boros gémmiñ gi parce que dañuy bañ seen gémmiñ am euh, feebar bañ seen gémmiñ am xet bëgg nañu fu ñu demee ci seen moroom ñu wekk leen mag mi itam bu xëyee suba bu miinul pâte dentifrice jël soccoom daldi socc ba noppi bu ndekkee socc bu añee socc bu réeree soccu ni ko ko xale bi defee mag bi di ko ko defee ku ne bala ngaa tëdd def sa pâte dentifrice parce que lekk yi nga lekk ci bëccëg bi am na yu ca jóge takk ci sa diggante bëñ te boo ko fa bàyyee bu yàggee mu forox te bu foroxee te dindi ko bu yàggee mu ënnal gémmiñ gi te bu ënnalee gémmiñ ngi koy waxal mu du mooyu moo tax ngay rey sa bopp ci socc bi di rey sa bopp ci cure bi di rey sa bopp ci pat dentifrice bi di rey sa bopp ci bain de bouche bi te buñ la ni moo gën baax nga dem jëndi ko yàlla nag wax la ci alquran ni la nag bi ngay respecté say moroom ci kaw suuf def nga ko mais bul fàtte ni léeg-léeg yow nga lekk sa yàpp moroom c'est extraordinaire bul fàtte ni léeg-léeg nga yàpp sa sa sa lekk sa yàpp moroom mu des ci bëñ yi te doo ko socc te doo ko def pâte dentifrice ba noppi bëgg a wax ak man nga defe ni duma dumooyu جلال بابي بس أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه نين كوباني فلي لك سياب مرام دخ جونغوكو لك سياب مرام دخ رمبا جنغوكو lekk sa yàpp moroom ndax fenal nga ko baa nga fenal sa boroom ba desiti lekk ya des ci sa bëñ nga ni dinga wax ak yàlla mukk foog pat bi ñëw mooy njàpp mi ok demal gàllax ndiku mais bul fàtt nit ci pat bi yaa ngi seet qualité bain de bouche bi yaa ngi seet qualité kon nag gàllax ndiku bi bi nga xam ni boo noppee wax ak sa boroom nay qualité moo tax doo jël brosse baaraam ngay jël ndax boobu yàlla ndax ku defe ni njàpp kese kese la xamoo lu xew sotti ndox mu jeex déedéet comme jaral na la lii nga dem pharmacie yëpp lu fa nekk ci pat nga jënd ko boros bu ne nga wut ko yàgg sa waa kër yëpp xanaa yàlla it moom it xanaa bëggul dara moo tax mu di leen ko wax wa yajaaluuna lillahi ma yakrahuun la ñu bañ fële yàlla nee na moom lañ may sédd man wa tasifu alsinatuhum alkadib أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون واو كي سوتشول دفو البات بي بغي مي نيم ان كومو جوب nga داو تاغانتي تاخ يالا نينا تاغانتي بوبو نك بوكو اوب امنا تا موي بي نين ديف سما ديغنتي غين با لو نين بون لي خبوما بو نين فني خوب خبوما خب parce que fen ngi baasewul wax lu amul ba noppi ni billaahi moo tax jëw jëw jëw jëw yeneenti bi ak Sayyidatna Aïcha wax naa leen ko bii passé jëw yonent bi am ku seet ci yonent bi rek ndax am lu mu doon leerlu ci daara génn Sayyidatna Aïcha waaye kii yee gàttuwaay yonent bi ni ko jëw nga ko de mu ni li ma wax dëgg la mu ni li muy dëgg tax wax nit gannaawam luy dëgg loolooy jëw ni bu dul dëgg kay ëpp na jëw waaw yooyu yëpp nag desiti lekk la yuy des ci sa gémmiñ te boo ko raxasul ak yàlla du ngeen wax ba ci bët bi nga xëy rek jël sa noir fumé ñu naan noir fumé wala verre solaire ah lii lan la nga na jant bi di tey ragal rayon X yi ak euh, rayon ultraviolet yi baaxul ci suma bët atam ma jël ay verre solaire ndax mu man ma protéger ci rayon yi et pourtant bis bu ne am na rayon yuy ñëw yo xamni mo gën graw rayon solaire yi te moy ki nga jakar lol xol ko beut bu mu le won ni xeb ko tax ba bu toge ci sawet nga ni lu mu toge ci sama bet warul tok fi beut bi nga xol nit te fekk ni presque bagn ko tax buñ la joxon tay baka ta nga sañ ko nga ray ko ndax bagn ko xool ba xool ba rayon dina ci jóge ci bàkkaar yu nga xam ni bu fekkul ñu protéger sa basira bu sa bët dee xoolati sa basira moom dootul xool إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور da yàlla nag nee na ni ngay reyee sa bopp ba wut ay noir fumé wut ay Vers solaire pour me protéger les rayons. rayon war nga wut yeneen ni lunettes. yuy tax rayon yele du mën a ci yow te mooy fem femm ba sa beut du xol lu mu warul xol do yebal sa beut mu tek ci kaw nit lu nga xamni mok ray ko ben la boobu moo gën gaaw moo tax yàlla di ko wax wa qul lil muminina yaxuddu min absaarihim yenn xool yëpp na yàllaa koy wax yenn xool yëpp na kon yéen ñi ne maa leen fi bàyyi bu seen bët bëggee jàng ba jël lu ko warul gëmm leen bu dee góor na gëmm bu dee jigéen na gëmm ndax xool bu ëpp la moo yóbbee borom baaxul te xam nga lan moo ci am mooy ñi jàng ci wàllu science di jàng wàllu mécanisme mu bët wala ñu koy jàng ci appareil photo wala ci ay caméra toujours image bi ngay xool bu ñu demee ba ci plaque bi ci biir image bi dafay juutu <laughs> lu am solo la li di wax parce que bu image bi juutuwul ci plaque bi li ngay xol du net mais boy xol nit xoolu bàkkaar xol bokoy koy naree gaañ le wouté bi parce que momit image bi ci sa basira fay juutu mais noonu mu jito ci bas sa basira non lay juutoo ci sa xol loolooy tax bu yàlla gaawul rekk sa xol gaañ la ndax yàlla nag di leen wax ni dee leen gëmm bët yi fu ngeen yégee ni mu ngi leen di bëgg a xooloo seen musiba gëmm leen bët yi waaw ba des mooy nopp yi su bu ne nga ah waaw waaw sama nopp yi di dafa fàtt sama nopp yi xale bi de nañ may indil coton nangam nangam bu dee mag ñi nga gis mag mu jël dunq di jur góotu ba dootu fi ne mu ne damay nettoyer sama nopp yàlla nee na am na bu des am na beneen nettoyage bu ngeen war a seen nopp mooy ngeen fexe ba fu ñuy waxe musiba nopp ba du ko fekke waaw mais bu dee fu ñoo waxe musiba yépp nga toog déglu ji ko te boo xëyee ni yaa ngi nettoyé sa nopp ndax da nga bañ mu tilim fekk tilim na bu yàgg kon nag yaa ayuha alladina amanu ijtanibu kathiran min addann inna baada adanni ithmun mais boobu sax intéressé ko waaye wala tajassasu waxu la sax nga toog rek ñuy wax nit nga dégg ko boobu sax garaaw na mais bi gën garaawate mooy ngay defal sa bopp yitte fu nit jëm nga bëgg lu muy wax nga dégg ko fu nit jëm nga topp ko pour bëgg a xam lu muy wax nga dégg ko mu ngeen toogee ci mbooloo sax eh, doo doo xaw a xam sax li xew ci mbooloo mi yaa ngay may nga naan dama may diw nopp dama may diw nopp la mu doon wax dégg naa ko kooku tajasus la xanaa bala ngay may nit nopp kay may yàlla nopp moom mi la nii wala tajassus wala yaxtab baadukum baadan waaw mu boole yépp delloo si ko yàlla nag nee na bu leen defe ni dama soxar dama di docteur dégg nga loolu yàlla nee na bu leen defe ne aaye yëpp dama soxor dama di docteur te yéenay sama patient yéen jullit yi yéenay sama patient bu ma sañoon du ngeen muuma bu ma sañoon du ngeen tëx bu ma sañoon du ngeen gumba yàllaay wax de man yàlla docteur la yéen jullit yi yéenay sama patient bu ma sañoon du ngeen bu ma sañoon du ngeen tëx bu ma sañoon du ngeen gumba te yii ma wax nag mën na leen tëxloo mën na leen gumbaloo mën na leen muumaloo loo tax ma wàcce diine muy sama hôpital ma yabal yonent muy samay infirmier ma wàcce téere muy samay ordonnance waaye nag mieux ma wàcce diine muy sama hôpital ma yónnee ay yonent ñuy sama infirmier ma wàcce ay téere ñu di sama ordonnance mais nag mieux بريفنير كجرير قد نفذروا ظاهر الإثم وباطنه dem di faju ji am na lu ko gën te mooy fexe ba feebar bañ a ñëw waaw fadaru zahir al ithmi wa batina léegi ci bi muy neex ci bi muy neex bàyyi leen ko parce que boo demee ba mu naqari nga soog ko bëgg a bàyyi dootul yomb Lolo tax nak kon collaboration bi yalla bëgg collaborer ak ney ak bay dafa bëgg collaboration bi bañ yam fofu neke ndax nek collaborateur yalla kesse kesse nit dana ko weesu te moy yalla yegg ci dootu la dénk sa dom waye mu denk la wa mi du wolu bele mom la joxe exemple ci yonent Ibrahim avant mu koy joxe en tant que prophète mu joxe ko en tant que père de famille parce que ban dar ak ban scénario mo gëna a ci scénario bi dox digënté Ibrahim ak dom ji jàkkaarloog sa dom ak bay ni mu tollu ak ni mu bëggé dom nan ko ya bunay inni ara fil lmanaami anni adbaxuk fandur maada tara dom ak xam bay ak ciofel bak yitte ba dom mu ne ah ni gentina mbir de mu ni ko loolu lan la baye mu ni ko gént di la rendi lo ci xam mu ko du gentu baye ndigal la ndigal nak dañ koy def kon nag sa duni insha allah min as-sabirin be bas nga deg loolu bàyyi du gént ndigal la ndigal dañu koy def bu dee mën nga ci xalaat nag incha allah yàlla mi nga xam ni moo la ko sant lu ma salit mukk loolu la firi mais am na foo xam ne bi yàllay wax gisatul bàyyi gisatul doom fa lamma aslama ba ma demee ba yëg ni nangu gi ci baay gi mook nangu gi ci doom gee tolloo foofu gisatul baay gisatul doom nangu gi rekk a ko intéressé fa lamma aslama wa tallahu lil jabin ba mu ñàdd ko dégg yàlla waxinam ba ma yégee ni nangu gi ci baay gi mooy nangu gi ci doom gi ba mu ñàdd doom ji ah foofu yëngu naa wa naadaynaahu an yaa ibrahim qad saddaqta arruya inna kadalika najzi almuhsinin nee na ma ko nag wàcc nga ndax ku sa borom jaral nga ñàdd sa doom nii te bu ma bàyyiwul woon nga rendi koko liggéeyal nga yàlla lu nga xamni man na la dénk ñe ci pénc ma kon nag inni jaa'iluka linnaasi imaaman waaw léegi dootoo simple collaborateur léegi yaay sama yilimaan ca pénc ma li nga def ci doom bi defal ma ko te ña ca pénc ma jeex na mu nekk ci pénc ma nekk ca pénc ma ak jom ju toll noonu ba ña ca pénc ma mel ni Ismaayil yàlla xeebati ilimaan ji nuy wattaxada allahu ibrahima xalila waaw léegi dootoo simple collaborateur dootoo simple ilimaan léegi yaay sama xarit ñu ne ko yàlla lu tax nga tuddee ko sa xarit mu ne li ma nit jaral ba ma wàccee diine wàccee yonent wàccee téere ndax mu bañ a yàqu gis naa jom ju ni toll njaboot jaral ko ko looloo tax wa jaxal naa zurriyatahu humul baqi aha mu ni lu ngeen ci gis li ma am gannaaw gi yëpp waa suuf di ko di ko euh, barkeeloo ci sama wàll ci njabootam la génne moom Ibrahim xoolal loolu wax na dëgg lii côté Isxaaq lii côté Ismaayil waaw Muusa génn ca Isa génn ca Muhammad génn ca alayhim salawatullah donc loolu li mu lay wan mooy bàyyi am na fu muy yegg ci taxawaay yegg fa ci yitte yegg fa ci taxaw euh, defal yàlla fu mu dootul yem rekk nekk simple collaborateur mais dem ba faf nekk ilimaan yàlla dénk ko pénc mu dem ba faf ëpp ilimaan yàlla def ko xarit lu mu waroon séq nit ñi faf ko jaarale ci moom ndax xam ni dana ko man loolooy tax bu bëggee defar sa doom te defar ba gaaw dangay sonn ci moom lu tax du rëcc ci cofeelu yàlla xamuloo ni ni ngay rombe xale ni waaye xale bi maa ko sopp waaye ku di baayam wala ku di ndeyam yàlla dina ne xoole xale xam ne xale bii du ko rëcc mu ni maa sopp kii waay ba bu xasi prononcé ca cofeel ga dootul nangu ñu def ca njaboot ba lu mu fekke wu ba nga lakk leegul kon nag yéen ndey yi ak yéen bàyyi xoddi leen seen doom balaa lakk lee ñëw ñu ni ko yàlla nu ñu koy defe mu ni nekk leen buum te nekk yat ni ko loolu mooy lan mu ni buum ngi na leen ñoddi li te ñëw ok li nga xam ni xale bi amul maturité mën ko ñoddil boppam ba mu ñëw soppikul buum fexe ba mën a ñoddi loola indil ko ko li nga xam ni bu ñëwul du tekki ñoddil ko ko ba mu ñëw waaye nekkal yat te mooy li mu ragal dàqal ko ko ndax suñu cheikh wax ma bërki démb mooy bi may wax ci ma ñëw ndar mu laaj ma mag ñi séminaire bi nuñ ko gisee ak nuñ ko waajale moom góor gi de ma bu ma amoon jot sax ñëw ca séminaire ba waaw waxin la rek encouragement la rek mu ni ma Moustapha baat boobu na ci bàyyi xel de Moustapha ma ni ko am ah, mu ni ragal li lay dàq du la aar kenn mësul gis loolu ki ragal li lay daq mi du la aar bàyyi nag ak ndey bu ñu demee ba ragal liy dàq doom mais duñ ko aar bu tax kon nag bële nga ciy jublu mais fokk nga nga nga nga ñeme nga ñeme responsabilité bi waaw soog a mën a aar njaboot bi parce que boo ñemewul responsabilité jaru ko mais pour responsabilité bi nag nga def ko bokkul ak yi ngeen miin yi ngeen miin penc ko indi fu ne nga dugg fa lu ne nga daj ko fu ne nga lebaatu fa ndax ni dépense fu ne fu ne mujj na sa tur nekk fa ndax dépense naar bu ne nga leb ko borom boutique bu ne nga leb ko fu ne nga dugg fa ku la gisee nga nu may def kër ga kër yàlla tegu la ko parce que coono bi nga daj ci dépense bi pour añ bi rek ndékki bi reer bi xale bi tekkee ku gën te doo ko ci daj moo tax li ñoo tudde at tadxiyatu saamita التضحية الصامدة sacrifice bo amul tur amul adresse sacrifice bo amul à amul adresse on nous de qui Moi, ban moi, bi yonent bi parce que wala nga jàppee sa bopp doom ci kanamu xale bi bi gënal yonent bi mooy nga jàppee sa bopp toogandoo الجليس مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع العطر ونافح الكير yonent bi nee na boo bëggee xàmmee ki ngay toogal te fi nga toogeek moom du la jox lu dul yiw ak ki ngay toogal te fi nga toogeek moom bala laa bàyyi nga fees ak bàkkaar nee na boo bëggee xam ñaari toogandoo yooyule natt ko ci ki ñëw di jaay lij Cologne na lij Cologne lañuy wax ñun en tant que wolof eau de ñu ne lij Cologne xam nga kiy jaay lij Cologne boo amee njëgu jënd nga jënd ca la dàq waaye boo amul njëgit xet gaa nga fa ba keroog muy dem xet gaa nga fa lu mu bon bon ce qui veut dire que ki ngay toogal moom itam bu la mënul yar ci toogaay bi boog na am comportement bu exemplaire bu mu mën a bàyyi ci yow naa diw daal ndeysaan ba ma dajeek moom ndeysaan même boo ko dul roy lu mu bon bon jataay ba am lu mu bàyyi ci yow mooy jaaykatu parfum waaye nee bu nekkul nag boobu lu dul nekk ka ca des nee na toogal fu ñu ci mbaaru tëgg waaw nee fa fa mu uppee pour lakk weñ le lay fel felñent dana tëbbal la nga ni wa ah. neena ki ngay togal momi it amul ci yiw lu ko jar ngeen toogee mokk tok ci mbar momu ñoyam mune nak nday ak bayit ñi nga xam nak jamono bu na ñoy tok ak dom bu fekkul ñu yiw fel ñent ye ya dana bare waxin ñeent ya dana bare moo tax nag mu ñu war a def effort pour ndax exemple yi ñu war a jox njaboot ji waaw xam nga waxambaane ba dafa miin grand place ba bés bu nekkee du ko jiitu ci grand place bi amul bis bu muy manqué mais ñu toog benn bés ñëwul waa grand place ba ñëw ci kër ga ni ko lu xew gisuñu la démb ñëwuloo lu xew mu ni démb la am ñeen fukki at kenn mësul dégg loolu démb la am ñeent fukki at ñu ni ko waaw lan mu ne ah caaxaan jeex na lu ma jëlewul woon ci yéen ci yow ba am ñeent fukki at bay ba ma wutali ko sama bopp ñun nag toujours boo amee ñeent fukki at ngay soog a dem grand place dem nag di mag ñu waroon la yaakaar waroon jëlee ci yow lu ne nga dem ca grand place ba rekk tas ko mais lan moo waral sen bat bi len sen gor gi dan wax serigne baba si def ti mak mu yew yene iya ko degge ben façon mi yaatu na ngeen san tok mu bëgg wax ak yeen li len di jariñ bu xolé te am ñu mu gis ci seen biir te minu len daanul tok ak ñoom sëriñ Babacar ni len ndax cere ji ci xëy na am nañ ñu ko firee neneen mais boobu taxul ah te mooy ndax ñi fi toog ñépp ndax yéen a bokk benn pas bi ndax booy wax ak ñoo xam ni ñëpp bokk ñu benn pas bi am na niveau boo xam ni boo ca yeggee rek àdduna tukki ma ngi ko waxtaan ak sama mbokk bii xalifa Babacar Niang mu jógee Slovaquie fan yii te nettali naa ko Seyid Cheikh Mani len gis nga am na façon waxtan yu nga xamni ak façon kaddu yu nga xamni ni intellectuel du tax nga dégg ko amé responsabilité moy tax nga dégg ko man nga jang téré yépp am ko xamni bu waxé du nga jëli ndax sa responsabilité boko wara déggé a ca wa ha. udunun wa'iya boroom responsabilité ko bu xam li mu dom لولو تخ نان يونت بي صلى الله عليه وسلم ام فاصون بو مو واخه بام كو واخه با ليغي بروم دارا يانكوي كوي فيري مي نيكو فيري فيري بو بو وير اماكول موي كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه aw yu nasiraanihi aw yu majjisaanihi man ci li ma dégg ba ma nekkee ci daara ji nag ba léegi ak ñu may dégg ci rajo yéeg télévision yi ku ne waaw ah, yonent bi nee na képp koo xam ni eh, juddu nga ci fitra fitra yàlla nga juddu kon nag sa baay moo lay def yahud ba mu def la nasaraan ba mu def la majuus déedéet yonent bi dafa wax ni sa doom bi juddu fitra yàlla ganesi ko ba mu nàmp lislaam c'est tellement important sa doom bi juddu fitra yàlla ganesi ko ba mu nàmp lislaam bu fa jógee jëfandiku nurook yahut wala mu jëfandiku nuroog nasraan wala mu jëfandiku nuroog majuus yéena du man c'est yor sa xale ci kër gi booy dem jàkk ji yóbbaale ko jàpp ci loxoom bu koor gi jote nga ni ko jéemal jéemal woor comme ñëpp muy jéemantu di woor kooku mooy éducation formelle bi mooy tarbiyatul kam c'est formel neex na ci ku ne ñu ah, ana xale ba dem na daara ja jàngi na alxuraan ana xale ba àdd naak euh, magam dem nañu jàkk ja neex na ci xolu jullit bu ne mais kooku tarbiyatul kam la c'est formel d'accord mais bu informel bi moo dàqal yàlla mooy tarbiyatul tayf miinal sa doom jàkka ja miinal ko géewu wadifa ba miinal ko taysiir ba mu koy jàng ba dàq ko ñépp te bu génnee ci mbedd mi ñu jaawale ko ñi ci mbedd mi am na lu xew moom la yàlla yonent bi wax ci xadiis bi nag ki juddu fitra yàlla fekk si ko ba mu nàmp lislaam bu fa jógee jëfandiku ñu jàppe ko yahut wala mu jëfandiku ñu jàppe ko nasaraan wala mu jëfandiku ñu jàppe ko majus yàlla nee na du man yéena fa abawaahu yuhawidaani waaye man ca fitra ba la moo tax kon la seen góor gi waxoon dellu si sayid cheikh ahmad tijani te naa rien voilà am na ko xam ne responsabilité am xam nga complexe bi ngay gis ñun moo ñuy metti léeg-léeg gàmmu yi jot wala yenn yi jot ay naar ñëw nga gis ñu complex ndax defe ni seen sëriñ a ñëw xam sa bopp baax na